bismillaahi may ndokkel suñu weer wi gën ñëw na jukkal Seexi Baay dafa war moo tax tey ma woy Tayba ku màggal ñëwam gi lislaam beeg laahu buur bi teg la sa kaw Alfayda FM Komaaf ak groupe Medina ñoo leen di may xibaaru gàmmu Tayba 2020 sant baay ñas war na ku ne suñ ko santut Allahu du bég dem magal ji baay avenir la gàmmu Tayba ñépp pare nañ la Taïba daal dëkk Mbon la. mbokk yi dalee nag jàmm ci seen journal waajtaayu gàmmu Taïba Niassène édition deux mille vingt dañ koy door rek gàmmu Taïba Niassène ana kan moo ko sos ndax ba ñu koy sos ci dundam la moom Mame Mbaye Niass nan la meloon démb laata moo am dayo bi mu am tey jii guddi gu màgg googee ñuy waajal ana lan moo ci war a am laaj yooyu la nag Cheikh Abdoulaye Ousseynou Niass moom moo ñu koy tontul di doomu Serigne Ousseynou Niass fii ci Medina Baye ci micro Cheikh Tidiane Sarr. ci Tatimou Salihat di sant yàlla di wax ne bés bu ñuy waaj muy gàmmu ba bés la boo xam ne mag ñi nettal nañ ne Alaaji Abdoulahi Ibrahim ñas di taawu Baye ñas moo ko initié oo ci taalibe yëpp maanaam bés bi daal gannaaw Baye la am bés bi nag du dara lu may fàttaliku waaju màgg googu di Mawlana Cheikh Islam Hadji Ibrahim Niass eh, fàttaliku ko ci ay àddinaam fàttaliku jukkoom yu màgg njëriñam ci jaami yàlla ci biir ak ci biti ku ne xam na ne léegi gàmmu Taïba bi ngi am ampleur bu mag ay at ci gannaaw waa dëkk bi rek ñoo ko daan fete mais léegi dañuy jugee fu ne sous région bi Mali Nigéria Gambie Ghana ñëpp di fekkee si yëfi mboolem ñi aju ci pays bi rek dañuy ñëw di ko fekkee si oote bi nag dañ koy sof rek ci li sëñ bi wax ku la oo ci baay moom baay moom oote wu daar lu may eh, bëgg yàlla jeex ci yàlla tudd yàlla jëfee sunna si yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne Taïba lu rek moo fa yóbbu ñi tasaaroo waat ci loolu te ci la ñuy dajee waat tamit commission ba ñu dénk wàllu kaarange gàmmu gi itam ña ngay dànkaafu ak di axtu defkatu ñaawteef fii ndax matukaay ya ci war yëpp jël nañ ko boole kook lépp la mu laaj daanu ko ci def ba mat sëkk ànd takk der yu takko takku bu ñu sukkandikoo ci Elimane Lo di président commission ba ñu dénk wàllu kaarange gi mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. fi mu ne jokkoon nañoo ñi yore sécurité bi les gendarmerie ñoom seen matuwaay yëpp yiñ di pare woon pour di ko jël daal dañ ko yokk ren ne patrouille bi commencé na te ñuy ñaan daal euh, ñi nga xamee ne daal dañuy ras dem ñu moytu gàmmu tay ba ndax sécurité bi dana mët sëkk képp koo xam ne da nga ñëw pour gàmmu alhamdulilah da nga gàmmu da xam liñ digle ci gàmmu tay ba yëpp li bàyyi digle li bàyyi ñaan ci Taïba da nga ko am waaye nag ku fa def safaan bay nag da nga lu la ñu ngi ñaan daal ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm. ñaata agent de sécurité ngeen demandé. agent yi nag ñoom fi mu ne nii dañoo wax ne dañ leen di bàyyi ñoom ñoo xam sécurité ñoo xam nombre ba ñuy indi dañ ko bàyyi ci loxol commandant gendarmerie Nioro ak Kaolack. waaye bëgg ngeen ñu tàmbalee fan sécurité bi. Mm. sécurité bi ci jëm ñu tàmbalee ko Kaolack ba Dingaraay ba ak këri sëriñ si ak sortie yi yooyu yëpp danañ ko euh, ne nañ ci wee ba nga xamee ne incha allah nit ñi dañ ñëw ci jàmm dellu ci jàmm. am ngeen ay ndaw yu leen di gindi pour ñu xàmmee aussi. waaw waaw nañ fi mu ne nii commission bi ne tay ba seen balaa deux jours wala trois jours avant commandant gendarmerie bu Nioro dana ñëw ànd ak bu Kaolack ñu def plan de circulation bi wane fii oto yi war a gaare ak yëpp ak kër yi sëriñ si ñu war a yóbbu ay éléments yooyu yëpp dañ leen ko wan ba mat ba nga xam ne buñ ne suba la bu ñëwee rek def plan bi. weesoo kaarange ga wàllu ndox mi itam am nañ ci yaakaar gannaaw ba ba moom am na forage yu boppam nguur gi itam yokkal leen ci beneen forage ak yeneen i forage ya ñu ko war a lënkaleel su ko defee ndox bañ a manqué ca gàmmu ga bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Khady Niass di président commission ba di ko ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox ma ci biir comité d'organisation ba. waaw wàllu ndox moom liñ ci dégg daal na tal xam nga Taïba Niassène moom yàlla dafa def ci tax Taïba nekk mu Cheikhul Islam El te jii forage boobu mu amee dem nañ ba état defar na fa beneen forage boo xam ne Asifor baa ngi koy gérer mu ñaari forage am benn privé yore Ozara jël forage mettre ko à la disposition Asifor bi ñu koy utiliser heure bu ñu ko soxla am fa aussi projet bu fa nekk muy projet ANIDA ñu gën ko tuddee REVA forage yooyu yëpp dañ leen mobiliser éventuellement même du càmmee yi nga xam ne dañu nekk en réseau que bu soobee yàlla ndox mi niñ ko soxlaa rek nit ñi mën ko ko jëfandikoo anam bu nekk te du service état bi hydraulique wax man yàgg fii ndax bientôt peut-être neuf mois waaye ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk rafetlu nañ seen ànd ak ñoom ndax boo ko seetlu aussi gàmmutaay ba néew na lu nit ñi jàmman ndox donc def loxoom lu am lañ ci daan def it nee nañ te nañ ñëw bu soobee yàlla def maintenance forage yi en même temps aussi positionné équipe technique yoo xam ne su waree am yenn problème yi ñu mun ñu ci jàppale te daanaka loolu lañ soxla ñu nag Agifort Taïba Niassène je le dis toujours dafa nekk Agifort boo xam ne bu spécial la ndax wax dëgg yàlla am dafa toll ay citoyen lañ lu toll ni gàmmu Taïba Niassène buñ koy àddina di fi daje yi ah dañuy tàllal suñu loxo état waaye agifar bi en tout cas yàlla dimbale na ko ay moyens yoo xam ne tey jii bu ñëwee ba lënkaloo état yaakaar naa ñoom fu ñu manqué rek ñun mën nañu teg loo xam ne soobee ndox moom mën nañu assurer population yi bu soobee yàlla dara du ci manqué dañ koy ah, jeexale ak Mohamed Moustapha Niass di doomu Cheikh Mohamed Dam Ibrahim Niass moom nag mi ngi ñëwaat ci solo sa guddi gu màgg googee yaatal ko rek jaaxee ko di ñu gën a xamaleek Taïba Niass seen dëkk bu sell boobee Mame Baye gane àddina ànd ak di ci woon ñëpp boole kook ay ñaan Tidiane ñu teewlu ko ci micro Cheikh Tidiane Sarr. ñu ngi ndokkeel ummal islamiye ci weer wi nga xam ne moom mooy teru muy weeru suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mi nga xam ne may gi yàlla taxañoon ci àdduna way njëkk ak way mujj ci la ko yàlla sotti ci moom kooku nag fàttali woon nañu ci taarix lan mooy soloy màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu am na benn laaye bu wér ci alquran moo ko ko wax ne ko ñu màggal guddug yonent bi sallallahu alayhi wa dafa war ci bépp jullit ndax yàlla moo yonent bi ci xaqam ne ko kullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbiti bihi fu'aadak mu ne yonent bi ne ko naa la solol xabaar yonent ya la jiitu woon pour dëggalal sa xol ci gëm yàlla bàyyi mu ne su fekkee yonent bi la wax lool ci yonent yi ko jiitu woon fa maa ñun ñu nottali xabaar yonent bi sunna soos nag alhamdulilahi rabbil alamin xaaji abdoulaye mi nga xam ne premier khalifa moo ñu indil sunna si rafet si tayba nag suuf su barke la moom wax na ci ay waxam ne bi tayba jiituka ilaahi taiban wa taaliban wa xaadian wa aaiba bi manzilin mubarakan tunzulini wanfa huna jami man qasadni moy ne baye dafa ñaan ci tayba go nga xamne mo nek waccu waye mu ne ma ngi ñaan kep ko xamne ñewal nga ma ci tayba lepp luy sa aajo rek yalla nako yalla fajj te baye waxam du wax jo xamne dañ koy lambatu beyti bobu rek jarna kep kuy julit rek fekke ci tayba ndax moko wax jitu mom moy judd kon xamone na ne bes bi dañ ko magal xamone na ne bes bi besuk fajuk aajo la kon ñi ngi ñaan yalla kep ko xamne yaangi ñew ci bes bobu rek beyti bobu yalla na manam ci kep ku ñew ci tayba mooy wan faax hunaa jamii man qasadini képp ku fa ñëw rek sa qasd ak sa mébét loo bëgg rek yàlla mën na la ko defal jaajëfal leen mbokk yi ci teewlu gi jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci suñu yeneen jotaay xabaar ci seen wàccaayu gàmmu tayba ñaseen édition 2020 bàyyi ñas yow la ñuy ndokkel ñaseen nañ leen fa uyu ji walaay xibaaru gàmmu tayba 2020 nañ leen ndokkeli bés ba juddoog tayba ñaseen gi ñëw na